moo tax tomb yu ni mel euh, di xew-xew yi nga xam ne day xew rawati tamxarit xarit euh, yuñ ci gis yoo xam ne jullit yi war nañ cee ubbi seen gët xoolaat ko waaye war nañ cee ubbi seenum xelit càmbar ko bu baax a baax a baax ba xam ne tam xarit gu ci jàll bu del siwaatee fekk fi nit ki lu bari raw na ko ci dundam te dul sa jot bokku na ca lu siiw lu ñuy wax taajaboon taajaboon lu gëstu xóot-xóot munta weesu taajaboon loolu fi mu ne ci alquran afa min hada alxadithi taajabuuna wa tadxakuuna wala tabkuna wa antum saamidun fasjudu lillahi waabudu loolu da am lu ko jiitu ci ay wax waaraate wu yéeme moo ko jiitu moo ko jiitu loolu nit ñi amuñ ci soxla waaye su ñemoon rek ci baat bi euh, taajabool faw ñu laaj ko wolof yi ko doon wax lu ñu ci jublu ñoom waaye su fekkee boobu lañ ko niróo leen moom bokkut ak moom lu muy wax ndax kuy taajaboon nu muy def mooy jëf ju ñaaw rek mooy góor sol mbubum jigéen jigéen sol mbubum góor ñu àndandoo ñoom ñaar def groupe nga xam ne doo leen xàmmee boo leen séenee bu ñuy ñëw doonte góor gu ñëw wala jigéen gu jëw mënees na koo xàmmee waaye bu ñu la gënee jege ba nga defee ne kee mooy góor kee mooy jigéen jiit dana jafe xàmmee ndax dañuy diw ci seen kanam yi ñii diwoo ab doom bi poudre amee léegi ñu diwoo poudre am ci ñuy takk ay béjjën. ca béjjén moo ne loolu ku ko def tooñ nga boroom béjjén yi ndax borom yi borom béjjén yi duñ mës a dem mukk ba yàgg ñu wekki seen béjjén yi di bëgg niroog doomu aadama dañu ko yor ba ba ñuy faatu kon loolu ab tooñ mënu ko weesu ñoom fu ñu amoon fu ñuy kalaame ji war nañoo dem kalaame ji ndax sañ nañoo laaj foo jëlee béjjén bi yor ko ana ka ana waaye dañ cay boole di wax lu kenn xamut lu mu doon am na ko yow Abdul Jabbar Abdul Jabbar Njaay moo ne Abdul Jabbar aw tàgg la ci doomu aadama al Jabbar mooy suñu borom subhanahu wa taala waaye ñu ne Abdul Jam Abdul jambar Njaay ku sant Njaay war naa tiit bu ko déggee di fecc waaye dañ ciy sàcc ñe dañuy yalwaan ne yalwaan ku ne xam na ne kenn terewu ko waaye dañuy sàcc di sa boole te guddi ko day mel ni sàcc dafa dagar da dégg ñu naa ko gaaw fat balaa waa balaa taajaboonkat yee ñëw di ko jël ndax tey jii lu waaye def jéggal nañ ko loolu ba léegi si ba dégguñ ko lu waay bëgg a sàcc jaara ci taajaboon sàcc ko te réew mi moom atteeguñu fi sàcc ndax liñ tuddee sàcc yombut muy ay gàkk-gàkk yu bari waaye bala ñoo taajaboon ji taajaboon yi am lu ñuy lu ñu saxal loo xam ne kenn mënatu ko fay dindi ba am nañu ci tagoo coono yu metti te kenn jaaragul yoonu dindi ko muy lu mel ne togg ci ay reer yu baax loolu teguwul fenn reer yu baax kenn terewu ko waaye amut bés waaye dañ caa cere ne cere moom dañuy wax sax naan la baaxantal defoon nañ ko daa fekk de dañuy baaxantal loolu loolu bokkut ak sunna bokkut ak jaamu yàlla baaxantal moom bokkut ak sunna moom bu ñu reeree ba noppi ca cere ya dëkk yi nga xam ne miinuñu cere ña fay faj gëstu wane na ne ñoom nee nañ saa bu reer xarit yi jàllee seen opitoo yi day fees dell ndax biir yi miinuñu cere te faw nga lekk cere boole wax ak la muy àndal lépp am ñoo xam ne cere ji dañ koy jël mag ñi daanañu wax ne cere diw yàqu waaye diw yi xew léegi nga xam ne dañ ko ciy diw ba mel ni muraage ñu dellu jëlaat ñeex moo xam ne dañ mel ni diw kese kese boo ko tiimee sa sa yaram daw ku ne xam na ne baaxul ci biir waaye dañ naan ku suur guddi ki dootoo suur wax nañ dëgg tey sax ku ndékki wutoon duutoo ndékki ndékki li ñu def ba noppi ku ko ndékki wutoon duutoo ko rek ndax bis bi déwén lay ñëwaat suñu noppee jël ndab lañ doon reere lekk ca ba noppi war caa dund dugub war leen a dundal waaye ñàkk ko war ma wal wëlbati ndab la dëpp ko ci suuf di ko yëkkati dóor ci suuf di ko ñaani seeni soxla waaw kañ la yàlla tëlee ba soo dëpput sa ndab guddi tam xarit ñaan du la mën a wuyu yàlla du ma sëtale mukk ala kulli shay'in qadir ba mu doonee qadir ba fi mu toll nii jeex na laa yazaal lan wala wala lam walan su ko defee buñ ca noppee jël ca ca rajo ñu doon reere ab kolkol bu baax boo xam ne ku yelwaan jaar fa soxla na ko lool ndax kolkol boo xam ne ponk la ko kolkol dana regg ndaw ñu ne ko tong ca kaw ndab la bu ñu xëyee jël ko defaat ca ndox ne na ci ñëpp sëlmu ndax ku ci sëlmu doo sëlmaxa am aagay am na micro bi say nekk yoo xam ne ku ko sëlmoo mën nga caa jaare sëlmaxa xanaa kon bu fekkee ku ko sëlmoo doo sëlmaxa ku xanaa sëlmaxa su ko diwoo kon wér bu jëkkoon ca àll ba dañ daan wëlbatiku na jàkk jant bi di ko xaw naan xool leen Faatamata bint yaa laay mooy fóot Lolak nak jamono ci dafa wara wessu sungin ndax yooyu yëpp su ngeen gisee mag ñi teunkoon le japp ko di ci togg reer yu baax reer yu baax yombutoon donte yap xara ganar ganaar na bari ndax baba sacc sacc tambali ko sacc ni ñu koy sàcce waaye ñoom xamuñu won jek jek rek rayum xar wala ray ay ganar yu jeex lek ca barak dedet saa boo gisee njiitalam xar kay neel ko faatu ngénte la bu deew nag ñu ne mbaadu daa am ko faatu waaye xamuñu rey nag lekk ko wala xar lekk waaye dañ ci daan jublu ci li gëstu wane tënk ci gone yi bañ yàkkamte mu dellu si su ko defee guddi googu dañ leen ciy waar di leen ci delloo su ci suñu borom subhanahu wa taala di jàngalaat njàngalum yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñenn ña nelaw ña nga xam ne gën nañoo dëgër ci at toog ba julli fajar jot ñu julli fajar ku nekk yawe ko suñ tase suñ xëyaatee woote waat ak julli julli googu it mat na gëstu bu baax a baax donte bari na téere yu ko waaye julli moom waxtu wu nekk baax na su dul waxtu wuñ tere ko ca naafila rek bu dee daara Sénégal fi jant bi diggante fi bi fenk ak bi suba ba ba ñuy jóg nangam wala ginnaaw takkusaan ba ba timis di jot kon julli ga waxuñ ay waxam julli baax na waxtu wu nekk waaye dañ caa teg ne na nga raay bopp jirim maanaam na nga jox ab jirim dara waaye bokk yi su fekkee jirim yi dañuy xaar tam xarit ba tam xarit ñu du leen soog a jox dara lu ñuy dunde ñu ne bëgg nañ ci ko saraxe bu dee saraxe dañuy xaar ba déwén ak déwén ñu soog ko saraxe ñi yalawaan moom lu ñuy bëgg a dunde siyaare ji boroom xam-xam waxtu wu nekk baax na waaye su fekkee dañ ko caa dàkk fii ba tam xarit gi sa euh, boo ci ja ji boroom xam-xam doo ca amee dara lu dul day tam xarit day jot boroom xam-xam bi lim yor war ko yulli kañ la koy yulli te yulli ko di war waru garam waaye seeti ku wéré it moo ci gën a yéeme ñu ne sopp nañ ko ci bis boobu bis yëpp lañ ko sopp bokk yi seeti ku wéré sax day faj day faj ku wéré su dee bis bu seen mu gis ku nekk ku ne na ko yàlla na ko yàlla woyofal bankal ko dara wala nga yit ko lu mu xeemee man ba muy wér muy xalaat naan ndax yàlla ma wér ba man saa lekk loolu bu ñu ko wutalee bis tam ba tam gi daanaka ñu ne si hôpitaux yëpp dañuy jeex lu ci lu dul ku ci wér di biñ ne ginnaaw suba tam xarit ba nit ñi mën koo seeti kon boobu lu ci mat xalaat la euh, tudd naa léegi col mu ñuy sol col moom moom dañ ko war a bàyyi ndax fi mu ne am na xew-xew yu ko niru ci àdduna bi yoo xam ne caaxaani kese la yuñ doon ne ci seeni maam muy carnaval bay am réew ku ko xamagutoon yàlla bu mu ko xam yàlla ump ab jullit ndax melokaan wañ cay mel moom ab jullit waru ko gis moom te moo ne ni aj màkk siiwe noonu lañ ko siiwale moom sax la télévision yi gën a wane ci aj màkk bi ndax aj màkk télévision jullit yi képp ñoo ko soxla xanaa kuy jox xabaar di wane ne tey li xew ci aduna bi moy arafat wala tawaaful ifada wala sànni jamra ñu wane mbooloo mi rek te welokaan bañ koy wane dara du ca bax waye carnaval rio mom mbolo mu bari ñu jóge dëkk dëkk fu gëna sori makka ak ak fu ma doon ci aduna bi di jël alal ju bari mu tax leena dem di seetaan ñuy def yaramu naan di wër mbedd ya ku ne di niru nuru ñi di niru nuru jinne ñi di niru nuru rab ñi di niru nuru seytaane wala bok li ñuy wax mostra dañ koy defé dëkk bu ñuy wax Vénétia ci italy te bok yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere jullit yi ñuy nuru nuru lu ku dul bi sallallahu alayhi wasallam ndax kat nuru nuru lu dara borom Tuubaa am fatwa bu mu ci defoon ci gànnaar boo xam daf ko wane ñu teg ci loxo dañ koo laaj ñaari laaj bu jëkk bi moy courier lu koy gënti mu ne deg na sen naa tontu am ku ne ko nuru nurul dara lu muy nuru bañ toge ñaari fan ñetti fan mu ne da bëggoon mat mu bari ab lob ku nekk dem wuti mat ñu ñëw ba jant be so mo nañ ko taal mu jaaxal ñep lob bu fa léegi mat mu baxé ni ku ne fayal ci yeneem bëgg gëna a baax le aw say ñu taal ko tek ko ci fu kawé muy bërëx wërëxi ci guddigi fajar gi am ñu aksi ca yor yor am ñu aksi bam mu tusba tusbaar ba noppi ca jàkka ja li ëpp ci waxtanam ci jàkka la ko daa defee mu ci jàkkaarloog mbooloo mi ndax ne amul ñu fi ñëw biik ñu né ah kay am nañu aksi am na ko ñu ci fajar am ñu aksi yor yor mu ne nañ seet ba xam ëndal nañ dara ndax am nañu ko fi soxla lool jàmbat nañ ma ko ñooñee bañ seete yi ñu ëndalee mu am solo lool raj raj tàmbalee bari mu ne ana ña laajoon bëkk démb ñu ne ñoo ngi nii mu ne lu ngeen laajoonati ñu ne sawa kuréel lu koy gént mu ne yéen ñëw ci faj lu leen def ba ñëw mu ne dañoo seen génneel ba rek mu ne seen tonton noonu kuréel sawa koy fañ fay laata jógee rek am sa ndax bu ne kër kër ci kaw xayma bi ci jàkka ji nag xayma bi jàkka ji am ku ko séen di bawal bawal ragal ko lool naan kum tuur ndox lii ak laa daal di koy bàcc mu daanu ñu ray ko ca saasa am ko xool tànk yi ne déet boo ak ki ñu ko tegoon de mu ne yéen ñëwoon yéen ñëw ci nu ngeen def ba ñëw nag ak yoon wi ni mel mu ne faaraat yi ñu watu jubbu yi ñu watu moo tax tase nañoo asuna yi ci àll bi waaye dañ ñoo niróoleeg seen bopp defe ne ci ñoom lañ bokk ñu bàyyi ñoo jàll mu ne kon boog lu waaye bëggut a njoxlab atteem bu ko niru niru loola moo tax ñu sa ndax te yoonam nekku ci dañ ko tegoon keneen kon boog ab julit ki mu war a niru niru lu mooy sallallahu alayhi wa sallam fu mu tegoon tànkam ci fu mu war a dem lu mu waxoon ci lu mu war a wax nu mu defoon ci aw defiinam ak lu mu doon laal ak lu mu fa doon bàyyi Euh, bari na lool ay wax waaye nag yàlla nee na ñu bari ci nit ñi su ngeen leen toppee daañu leen réeral bul fàttee abonné bul fàttee abonné bul fàttee abonné